la ziar. delloo ziar. tur bi nan la. Papa Ndour. ñu baal la ñu parce que ñu lay seetaan bon salaamaaleykum waa Mbédé Vision tur bi Papa Ndour la euh, dëkk Fass Mbaw nekk président AJDFTECO donc AJDFTECO nag nekk benn association boo xam ne day yëngu ci lépp loo xam ne décoration bu <laughs> waaw bu ko defee kon dañuy ñëw si waxtaan wi xam nga. poser la première question bon kan ngeen kan ngeen commencé lii def bon AGDF nag euh, dafa am créé le 8 avril 2012 école association une association qui a participer ci objectif social et culturel de bi maanaam association boo xam ne day organiser lépp loo xam activité sociale 2012

Il def mom eh, yalla def qui fu nek gaay ko dañuy dem def ay par exemple euh, mën nañ gambu ne xam nga defal ko fo xamné peut être ay kanam ay yoy fa bon comme affaire bi gànga le président bi xam léegi da ngeen commencé ak a am liggéey bo gis am na difficulté léegi yan difficulté yi ëpp bon. Euh, difficulté yu ñuy rencontré ci job bi mooy xam bon parfois da ngay am problème mu financement quoi parce que tey dañu nekk ci secteur yo xamné ak dañu nek ci dëkk bo xamné ne peut-être gars dañuy yéex xam ko dem parce que xam nga da ngay gis parfois jeune di dem ñu xamni que ki day dem au lieu que ñu teg ko loxo noonu ñu ko teg loxo au lieu que ñu jàppale ko ci ay financement mais di ko jappalé ci ay financement bon mais loolu yëpp ñun ñu ngi koy essayer essayer di seen problème mu la parfois AGF yi am mais bon yàlla def na ñu koy gérer am ñu ngi koy ñu ngi koy essayer de de de de maintenir parce que liggéey ak loolu bon léegi yéen seen équipe bi ñoom ñoom ñaata la ñaata la ñu AGF euh, nag équipe bi pour nga lim ko du yomb quoi. mais genre association bi def association bi ci boppam mi ngi nekk ci entre vingt à vingt cinq personnes mais ñun tamit suñuy mbir dañ ko yaatal parce que yamalewuñu ko ci ma Massamba yow yamalewuñu ko ci Mademba dañu ne képp koo xam ne jeune ko nga wu liggéey ñor la mu ñëw yow yaa ngi jàpp élément def tey mbedd vision élément AGDF la keneen ak keneen élément AGDF la bu ñu nga jàpp si kaw nga bëgg liggéey ñëw moo tax euh, y a pas de yoo xam ne muy góor muy jigéen dañuy ànd ak ci liggéey bi ñuy couvrir loolu ay bon man fu ma bëgg a waxee man peut être par exemple mën ngeen am benn événement boo xam ne ay mariage yu guddee wala ay cant ba xam da ngeen koy diviser da ngeen koy diviser en deux équipes xamante ne nii ñooy dem monté après bu jeexee nii ñooy dem wala ñoo la wala bi kii bi ñoom ñu continuer di di bon AJDF euh, dañ ko organiser de telle sorte que dafa ay chef d' Par exemple, nous devons couvrir de 1 à 5 événements par 2010. Les événements que nous couvrons dans le chef qui un membre de l'Union. Les événements que nous couvrons, yéen yéenay nekk foofu ci événement bi couvrir ko ba événement bi jeex ñun dindi ko ci beneen lieu am nañu fa war a nekk couvrir événement ba événement bi jeex ñun aussi ñu dindi ko parce que ci nekk ak événement bi ngay couvrir ak sa équipe ak say membres yéen a koy koy déplacé. bon bon est-ce que est-ce que est-ce que ngeen di def comme ay location de chaise de bâche yoo xamante ne dañ koy soxla ci cérémonie la prépa. waaw bien sûr dañuy def location bâche chaise matelas. ventilo xam lépp loo xam ne dañ koy soxla si cérémonie dañuy def location yi chaise yëpp chaise royale xam nga lépp dañ koy loué quoi. léegi ba ngeen commencé ak léegi maam yan réalisation ngeen si def bon réalisation yi AJDF def def yu de AJDF déco def bëri na suñ parce que suñu réalisation mi ngi basé wu ci maanaam si suñuy qualité déco foofu suñu réa suñu réalisation si lay basé parce que nous ngi réaliser ay façon décoration pour bokkut ak sa parce que euh, ni ngay réaliser cette décoration bi loolu mooy waral clients yi di content di bëgg de la mën contacter te tey yàlla def na ni que trois ans le nekk ci ci game bi mais si trois ans yooyu AJDF ñëpp xam nañ ko partout au Sénégal parce que tey boo ñëwee si suñu compte TikTok y' a plus de vingt neuf mille personnes yu ñuy suivre nga dem Instagram noonu nga dem feneen noonu te partout la ñuy dem si Sénégal xam nga tey peut-être parfois yenn régions yi gars dañuy bëgg a woo mais peut-être ñoom du ñu am moyen pour mën a def ay déplacement parce que déplacement bi du mën a yomb mais bu ne au niveau de Dakar amul benn secteur bu ñuy bàyyi fépp la ñuy dem yàlla may nañu base boobu quoi. Ah, loolu ñoo ko gisandoo gars yi. AJDF fii nii si Fass Mbao Kër Maam Diarra. ku si bëgg décoration bu naas rek ñëwee ma seet si leen fii nii ah ay xale yu am jom la nangoo liggéey nangoo sonn. dañ lay yu naas yu nga xamante ni mooy loolu ay yu am fenn bon ñu gën a si waxtaan bi nag bon léegi par exemple. mosoo leen dund benn jafé jafe si liggéey bi par exemple ngeen defal kenn ben décoration fekk mom satisfaire wu quoi après moom nan la nan la kii nan la réfléchir euh, man euh, c'est rare boobu wala dama naan mosta am sax ñu décorer nit satisfaire ñuko quoi en général ñun client yi ñuy am ñu dañ leen satisfaire parce que tay liggéey dafa am avant dafa am pendant dafa am après avant bi moy client bi da koy déglu déglu ko xam li mu bëgg ak ni mu ko bëggee nga fekk ko ci loolu en plus tamit client bi dina ñëw ba si jour événement bi ne nii ni ngeen ko defee neexuma nii laa ko bëggee loolu noonu duñ ci tayal def dara dañ koy defaree ni mu bëggee parce que ñun à chaque fois dañ client bi daf naa ñu carrément Gongo mooy kontaan naa parce que ñun dañuy jox événement bi àq bu mat sëpp xooluñu ñun client bi cent franc yi ñuy fay liñ fay def ba mu naaj ba keneen ku ñëw jël suñu numéro ñun loolu moo ñu yor moo tax c'est très très très très très rare client bi ma satisfaire lu ñuy am de retour mooy ah 1000 franc yi ma leen fayoon de defal ngeen ma njëgu 3000. ñooñu da nga leen di remercier bu baax donte ñun ay jeunes kese la ñun ñëpp ay jeunes lañ mais tey yow nga nekk jeune di ànd ak ay jeunes ay jeunes jiital la ba pare nangu ni yow nga jiitalee leen kon jeunes yooyu foog nga remercier leen parce que nit ki bu la jiitalee te fakkastalu la pour nga dem day yomb te man jeunes yi ma àndal dañ ma jiital fakkastalu ñu lu ma ba pare nangul ma. léegi ñan ngay bon lancer message quoi pour ñu mën a ñëw jàpp si bagage bu gën si bon man moom euh, du ma lim diw wala lim nangam wala lim parce que ñun yàlla dafa def dañu nekk association boo xam dañu gëm suñu bopp xaaruñu kenn ci lenn soxlawuñu tamit kenn ci lenn ñun lu ñu gëm mooy suñu bopp ku ñëw di ñu defaral ñu jël mais tamit ku toog di ñu seetaan bi seetaan bi parce que ñun dañoo gëm ni li ñuy def nii soxlawuñu ci ndimbalu kenn parce tey. Euh, dañ nekk ci dëkk boo xam ne lu waaye nit defal nit su suba dina taxawaat feneen wax ko te ñun soxlawuñu ci loolu quoi léegi li ma doon wax sànq mooy problème mu financement mooy xamuñu Sénégal ko li may wax tey par exemple boo ñuy si suñu politiciens yi wala nga ñëw ci borom doole ñoom gis tal dañuy gën a gis ko jàppale ngir yàlla. comment nga comme tey da ngay gis ay jeunes yu dem mu leer la ni ko ñii su ma leen tegee loxo dañuy tàmm mais yow nga gën a gis que.

waaw amul secret liggéey rek moo wóor léegi tey jii nii ku bëggoon a contacter waa AJDF ko si ban numéro lay lay woote pour mu jot si yow. de ko pour contacter ko mun nga woote si 77 235 80 52 wala nga woote si 77 on 11 cinq boo demee ci au niveau de TikTok boo defee AJDF Déco di nga ko gis suñu compte TikTok nga dem sur Instagram nga def AJDF Déco 2018. di nga ko gis suñu compte Instagram boo demee si Facebook aussi nga def AJ Def Jikko 2018 di nga ko gis suñu suñu suñuy contact xam ah nga bon gars yi ñoo ko déggandoo mi ngi numéro yi mi ngi noonu ñuy affiché si écran bi noonu am waa AJ Def Jikko nekk fii Fass Mbao Tali Mame Diarra ah, di def ay décoration yu mucc ay bu nice